وسول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا يماتا الله الله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 الله أكبر ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بدعواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله الله الله jagleel am nuyoo it kilifa yi fi teew yëpp di suñu kilifa yi diine yi ak kilifa yi àdduna yi di leen wàcc seen wàccuwaay yi nga xam ne seen sunu borom jox na leen ko ñu ngi nuyu mboolem bokki taalibe yi ak mboolem bokki jullit yi ñi fi teew ak fu ñu mën a nekk di leen siyaare ci bis bi di leen ci ndokkeel di leen ci balaq di jottali kàddu yi sëriñ bi rek yoo xam ne waxoon nañu ñu ko bu ñu teewee ci jataay bii te mooy soññ suñu bopp soññ leen ci ragal yàlla ak jaamu yàlla ñaari ndénkaan la yoo xam ne fu mu toll ñu ngi koy dégg suñu nopp bari na lool waaye nañu xam ne jamono du ko weesu mukk ndax dañoo mënta tàggoo moom jenn jamono moo yor suñu mucc moo yor suñu tex ak ëllëg kon sëriñ baa ngi koy soññee bu baax a baax ñaari ndénkaan la yoo xam ne lu ñor suñu boroom la ndax la ko dala ca yonent yam ba mu njëkk a yónni ba ci bi mu mujj yónni ku ci dikk ñaari dénkaan yooyu lay jiital ci lam lay jot loo mbooloo ma nga jëm si kon suñ ñu neen nañ ko teg ci suñu kanam fu ñu toll lépp lu ñuy jëf wala ñu di ci wax ñu di ci seddu suñu boroom bu loolu jàlleet ñu war a xam ne nit ku ne war naa xam ne ba ko suñu borom di sàkk di ko indi ci àdduna indi ko fi ngir mu dund moom dong moom ci nit yàlla da ko génne ci biir ak njaboot njaboot gu ne yàlla da ko génne ci biir aw askan askan waa gis yàlla da ko génne ci biir aw xeet noonu la noonu la ñuy lëkkaloo di dem kenn ku ne nag am na lu la war sa morom ngir li ñu yàlla indee ci àdduna moo tax jullit bu ne war naa war na di yittewoo luy defar mbirum ki mu bokkal askan wi ko yàlla booleel kem na mu yittewoo ne mi defar mbirum boppam hmm. ndax kat nañoo wax ne fexe ba sa mbirum bopp rek jàkk loolu ak njàmbaar nekku ca te it du ndamul kenn kon ku nekk war ngaa def sa bëgg-bëgg ak sa yitte li nga xam ne mooy njariñul mbooloo ma nga bokk kenn na nga koy sàkkale sa bopp njariñ loo xam ne ñëpp ko daal ku ne na nga ko jiital sa kanam teg sa kanam te ca dox di ca wax ne nañuy wattandiku lépp loo xam ne day taqale wala muy féewale mbooloo wala aw nit kenn na ko suñu borom santaane loolu bu ko ñëpp defee yaakaar naa ñun ñëpp dañu bokk jariñu nekk dund ci àdduna dund ak jàmm ak salaam ak tawféex ndax boo ko defalee sa morom sa morom defal la ko ñun ñëpp ñoo koy bokk am kon loolu sëriñ baa ngi koy soññee bu baax kon sëriñ bi nee na nañu sax ñun ñëpp ci di dimbalente tey yërëmante tey jëflente it jëflente bu rafet rafet te lépp loo xam ñaar seq nañ ko wala xaw mbooloo seq ko lu ñu war a lijjanti nañ koy lijjantee ci ak dal ak ci maslaa ak ci njëkk ak teraanga hmm. waaye nee nañ xattit xattit ak xuloo ak xeex sotti lu dara wala fi dañoo wax ne lépp loo xam ne mar mayu ko màtt du la ko mën a may neen hmm. loolu nañ ko bàyyi xel bu baax dañu xam ne ay woote bu amee ci ay gis-gis ci moo xam ci diine la moo xam ci mbirum àdduna wala xëccoo ay njariñ àdduna wartu tax kenn mën a daas aw làmmiñam di ko jëmale ci mbokk mi wala di ca wax kàddu yoo xam ne day yàq waaye du defar dara loolu ne ñu ci yàlla musal ñu ñëpp ñu barkeloo ko ci waxi sëriñ Tuubaa ji wax ni wajaxal qulubana ala tawaadudi bila tanaasuhin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri xataa nasiira muslimina xaashiin aw muminina a saalihin yal ñu yàlla tàbbal ci biir loole sëriñ bi nee na mi ngi jotali ay cant bu baax a baax di di ko jëmale ci ki nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp di Cheikh Mouhamadul Muntaxa ayyadahu llah wa nasra sant na ko bu wér a di ko sant ci turu Daaru gépp ndax am na taxawaay bu rafet rafet ci Daaru Salaam yëg ko ak jàpp ko ak cëral ko cër boo xam ne sedd na xol waa Daaru Salaam gépp seetaan ñu ci lenn ñu ngi koy ñaanal nag Sëriñ Tuubaa taxaw bu baax a baax ba liggéey yu rëy yi nga xam ne sumbal na ko Sëriñ Tuubaa mu àgg ci foo xam ne daana kaymam jot yëpp sëriñ baa ngi koy seeral mbooloo mépp di ko wax ci seen tur nee it mi ngi sant kilifa yi nga xam ne ñoom la seqal Daaru ànd nañ ak mu ànd bu rafet rafet jàppal nañ ko ci liggéey bi nga xam ne suñu borom dénk na ko ci dëkk bi ak ci yoon wi gis na seeni taxawaay yéen ñëpp ñu ngi leen ñaanal suñu borom boo leen taxaw nee na ñu ngi sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne bokkoo nañ bokkoo nañ Daaru Salaam ba lépp lu fi xew ñu bàyyi seen i yitte ñu ànd koo ñoom bu baax te doon mbir màggal gi ñu weesu rek moo ci mujj nee leen ngi sant bokki taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar Daaru Salaam ak wëllëre Daaru Salaam ñooñu moom Sëriñ Tuubaa rekk lañ leen di booleel ndax kenn amul seenu pay seen taxawaay mën na sëkk sëkk yeesut fenn seen yéene mën na seen taxawaay rafet na seen i jëf mën na waaye nag nañ xam ne Sëriñ Tuubaa la lebal te Sëriñ Tuubaa ku fay soxal dana sëdd kon yàlla na leen Sëriñ Tuubaa fayul yéemal seen mbir te ak seen mbir ëllëg nee na yéen mi ngi sant bu baax mbooloo mi nga xam ne ñoo doon taxawu mbirum màggal bi te féetu ci biir dëkk bi nee na rafetlu na liggéey bi def nañ ko nam gën a sell gën rafete ba yaakaar naa ne ñëpp gis nañ seen bopp kon mu leen di gën a soññ bu baax dañ xam ne lool rek mooy yoon loolu ñoom ñoom ñoom la ko yàlla féeteel te mën nañ ko te nangu nañ ko te ñëpp nangul nañ leen ko it kon nañ ko gën a téye te gën koo fonk bu baax mu ngi leen di ñaan it noonu ñu taxawoo mbirum sëñ ba mu jag yàlla suñ borom taxaw seeni mbir ba mu jag defal ñu ñun ñëpp ci barkeb Sëriñ Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina muhammadin annabiyil amin wa ala alihi wa ashaabihi mayamin Euh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen bokki jullit yi fi teew ak ñi fi teewul te dégg wax ji ñi ne ci biir jullikaay bi ak ci nekk ñi nekk ci biir dëkk bi te kenn ku ci nekk nga xam ne sëriñ bi mu ngi lay gis ni muy gisee ni ci biir jullikaay ñu nekk ci mbedd mi ñu nekk ci kaw tali bi génn ci suba teel ba léegi ñu toog di nekk julli Daaru gi sëriñ bi gis na leen ñu ngi leen di sant bu baax a baax toogaay bi yàgg na waaye bari na njariñ lool ndax ànd ci julli gi njëriñ yi nekk dafa bari lool waxoon naa ko dinaa ko waxaat ndaxte fii ci Daaru Salaam fii la Sëriñ Tubaa njëkk a amee ab jullikaay ndax mooy dëkk bi njëkk a sanc te Sëriñ Tubaa fu mu mës sanc jullikaay ba lay njëkk a defar ci néeg bu mu néeg ci néeg bu muy jaamoo yàlla door a defar néeg boo xam ne fa lay dalloo kon nag jullit Daaru Salaam bari nañ njëriñ lool fii la njëkk a amee jumaa fii la njëkk a amee jàkka fii la ko suñ borom maye lu baree bari ci zaahir ak ci baatin kon nag rakkam ji nga xam ne moo ubbi bunt bi buntu njëbbal bi nga xam ne moom la ñuy jariñoo ci Sëriñ Tuubaa te Serigne Touba daan wax ne euh, Cheikh Cheikh Anta Diop bi mu may topp xamut lu mu may toppe man mi muy topp itam xawma woon lu mu may toppe ndaxte booba euh, li sëriñ bi yor baatin bi génneeku ko dara génne ko ci ndax booba Maam Mor Anta Sali ngi fi te sëriñ bi ñi mu wutoon a feeñal dara ci kanam Maam Mor moo tax sëriñ Abu Muhammad ne nañu tàmbalee ci sant maam Cheikh mu ne woon yoon wi ñuy toppee sëriñ Touba sant sëriñ Touba mi nga xam ne moonu xàllal yoon wu yaatu yoon woo xam ne eh, moo jëm ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te rasulullahi lu sun borom bind moo tax waaye nag rasulullahi ku ci gënal moo tax boo déggee imaam di tàmbalee alhamdulillahi alhamdulillahi sant yàlla la ashukru lillahi sant yàlla la waaye boo nee alhamdu nag yàlla rek moo ko moom da koo jàggoo cant la koo xam ne moom rek ko jàggoo ndax daa am yu bare bari yoo xam ne daf cee nekk ci biir cant gi bu dee sukuru nag cant la goo xam ne moom mbindeef mën na ko wax moroomam mënees na ko suñ borom kon sëñ bi mi ngi sant suñ borom bu baax di sant itam e, sëriñ Touba sëriñ Muntaxa ci taxawaay boobu imaam wax nga xam ne sëñ Touba sëriñ Muntaxa daf desalut ginnaaw daaru salaam ci lenn lu muy def lépp lu muy def boole na ci daaru lépp lu daaru salaam di def boole na ci boppam kon nag sëñ baa ngi sant Cheikh Mouhamadul Muntaqa di gën a yeesalaat di yeeslu waale taalibe yëpp yeeslu bi nag sëñ bi dafa wax ne jaam bi yàlla du nopp lu mukk waxtu wu ne mu dara xewut sax bëccëg bi gaat gaat am waaye nun Daaru Salaam nag bu weeru koor bi teroo taalibe yi tàmbali di tegoo di tegoo ay yenn yu bari am na ñoo xam ne ñi dañuy indi ci dund ab lu bare bari loo xam ne dañ koy seddale ci dëkk bi ngir koor gi gën a mën a jàppandi am ñoo xam ne dañuy indi ndox am ñoo xam ne dañuy indi lépp luy yombal koor gi sëriñ baa ngi leen di sant bu baax a baax sëriñ bi nee na bi ñu kooree koor gi itam yàlla moo xam mooy nangu waaye xam nañu ne koor nañ koor gu sell ba weer wi jeex ñu daje ni ñu ko defee muy bisu mbég naa koor gi suñu borom dana tere woon lekk ak naan ci bëccëg bi ba muy jeex mu ne loolu ma leen tere woon lépp nag e, daganal naa leen ko jëfandikoo leen ci lépp lu dagan lépp lu araamul rek may naa leen ngeen jëfandikoo ko ba seeni xol sedd loolu suñu borom bëgg doomu aadama yi rek a tax mu def ko e, ba ko ñaareel bu ñu waree rek màggal bu daaru salaam di dal agsi sëriñ bi nee na màggal bu daaru salaam gii gis na ci ren loo xam ne lii wax dëgg màggal yu bari fekk na ko fi waaye musta gis lu ni mel mbooloo mi fi daje bokk yi diggante Touba ak Mbàkke ak Njaareem bokk yëpp kenn desul ñëpp daje fi sëñ baa ngi leen di sant bu baax a baax a baax moom boo jiitalee sëñ Muntaxa mel na ni siit yi moom sëñ Abdul Ahad kenn dugg ko fi njëkk ci magal gi ak njabootuk sëriñ Tuubaa gépp ñoom ñëpp dañ ñëw nañ ci magal gi kenn ku nekk itam defe ne yaa war a def magal gi war nga ko war nga ko mën a wuutu ci jataay bi taxawul ko magal gi ñu ngi ci sant bu baax bokk yi ngi ci sant bu baax itam dëkkandoo yi nga xam ne bu kilifa ñëwee danañ ko jox ab cëram nañ ko war a joxe mu xam ne fii ay taalibe rekk fi nekk euh, màggal bu Daaru Salaam gi nag xam naa sëriñ bi mënut kenn ku nekk mu tudd aw turam waaye xam naa bu tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoo doon jàng alxuraan ci kenn jiituwu leen ci jàng nañ loo xam ne bariwut fuñ koy jàng ci alquran te njàng mu sell sell lañ ko jàng ci ginnaaw sëriñ Njaga Silla mi sëriñ Maamun Silla doomam ak sëriñ Fallu Gala ak sëriñ Balla Gueye ak ñi nga xam ne waa waa waa Boofel ak mboolem ñi nga xam ne ak waa Gédé ak mboolem ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci njàng mi loolu yëpp nag ndigal lay yu ma suñ bi jot li loo lu ci manqué rek ci man la waaye du ci moom nee na ñi ñëwoon jàpp ci màggal gi ñëpp sant na leen màggal gi nag moom xam ngeen ni mu toll dafa rëy ndax bu desee juróomi fan ci la ñuy tàmbali jàng alxuraan nit ñi tàmbali ñëw jànkati alxuraan yi oto yi leen di jëli ci lañuy ñuy tàmbali ñoom di dem ci dëkk yu sore yi di jël ay nit ñuy indi kon defe naa loolu euh, police yi war nañ koo xam bu baax loolu moo tax ñu ngi def CRD wax ak gouverneur gouverneur mi nga xam ne moom la président def mu yilif mbooleem ko yorub service ci euh, ci région bi chef de service yëpp daje ci gouverneur kenn ku ne xas xas laa ko mën a tudd ndax kenn ku ne danga dogg ci ne danaa def nangam ji màggal gi lépp luy tax màggal gi aw yoon danaa ko def kenn ku ne wax ko ci kanam gouverneur loolu chef de service yëpp def nañ ko e, loolu nag kon ñoom bu ñuy tàmbali màggal gi rek ñu ànd ak ñun tàmbali ko e, ba ñu àgg ci bisu màggal gi président yebal ay ministre ak ñi nga xam ne ñoo ko nekkal fii ci Mbacké lu mel ni maire bi ak préfet bi ak euh, police ak gendarmerie ak pompier ñëpp bàyyi seen liggéey ànd ak seen kilifa ñëw teew fii ci màggal gi kon sëriñ bi nee na sant na leen bu baax a baax euh, ministre yi fi ñëwoon itam yàlla dogal ñoom ñëpp ñu doon ay taalibe ginnaaw bu ñu amee ab yar boo xam ne yaru murit la am yar yar bu yar bu wér dañ ko boolee itam nangu ndigal kon nag euh, sëñ bi nee na muy sant président de la république ci ñi nga xam ne ñoom la fi yebaloon ak dikk gi ñu dikk ak li ñu ànd ak ñun bis bi euh, lépp li ñu fi ñaan sëriñ bi nee na euh, nangul na leen ko dana leen ñaanal dana ñaanal ministre bi fi ñëwoon Dame Diop ak ñamu àndaloon waaye dana ñaanal itam seen kilifa gi leen fi yebaloon ki nga xam ne moo joxe woon ndigal ba CRD bi mën a am muy président bi nga xam ne moo jiite réew mi ak ñamuy àndal sëriñ bi nee na mi ngi dellu di sant daayira yi nga xam ne ñu nekk bitim réew seenum liggéey teel naa agsi ci moom lool ba magal gi seen loxo kenn jiituwu ko fi muy daayira bu mel ni daayira France Espagne Allemagne Côte d'Ivoire Afrique ak Europe yëpp kàddu gi mu yàggal leen ko sëriñ bi bëggoon a wax walla mu bind leen lettre waaye màggal gi xat na xataay boo xam ne daf ne woon day bàyyi ba ci bisu julli bi mu sant mboolem daayira yi fi ñëwoon ak mboolem cheikh si cheikh bu nekk li nga fi indi sëriñ bi gis na ko taxawaay bi nga taxaw ci màggal gi yaag sa mbooloo sëriñ bi gis na ko mbooloo mi leen sëriñ tubaa booleel te ngeen xam ne liggéeyal sëriñ Touba doo nga tax sëñ bi boole la nag moom yéen mboolem seex si seenu taxawaay ak seenu njaboot sëriñ bi gis na ko mi ngi leen di sant bu baax a baax kon nag moom yoon wi yoonu wu yomba jàng la yoonu sëriñ Touba yoon wu yomba jàng la waatasimoo bi xablillahi jamian wala tafarraqu jàppante te jàpp ci buum gu dëgër gi nga xam ne mooy mooy buum gi nu suñ borom tàllal jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareel baatam bis bii nu toog kenn ku ne xam ne ne bokk na ci ponk yi yoonu murit wéye ndigal su tabaski wéye ndigal dong moo tax mu am bu wéye ndigal amutoon kon tabaski du am yonent yàlla Ibrahima moom moo am lu mu diggee woon ak suñu borom ba wax ko ne ba ma mayee doom doom ji góor ci nang nangam ak nangam danaa ko rey delloo ko njukkal mu jëlee paaka bi ba ba mu ko joxee ndigal li mu woo Ismaayila doomam moom la waroon a rey bi mu ko ko waxee Ismaayila nangu ndigal li ne ko defal li la sa boroom digal mu tàgg tàggu wajuru Ismaayila bu jigéen mu nangul ko ne ko defal li la sa borom ndigal kon baatub digal boobu moo waral jullit tabaski am kon bu ñëwee faw ñu fàttaliku ko te xam ne yoonu Serigne Touba digle ak jëfe rek fi nekk tere ak bàyyi rek fi nekk kuy digal nga def ko danga am ak texe ga àdduna ak àllaaxira kuñ tere nga bàyyi nga bañ ah da nga dajeeg safaan ba kon nag nu ñaan Serigne Touba Serigne Mountakha yàgg fi lool ñaan. sëriñ Abu Muhammad mu yàgg fi lool ak njabootam ñaan njabootu maam Cheikh Anta ñu yàgg fi te ñaan njabootu Cheikh Mouhamadul Maamoun gépp ñu yàgg fi te wér ñaanal yi nag seeni xiiwal dolliku seenu wér dolliku te ñu xam ne ku wérut doo mën a liggéey ku amut xiiwal gu doy sëkk doo mën a ànd ci liggéey bi ndax buñ jógee ci lii kat eh, danañ ci teg màggalu Touba buñ ci jógee teg ci addiya Daaru Salaam ji te daaw yóbbu ngeen yóbbu nañ trois cent dix millions te dañoo fas yéene eh, ren jii nag nu romb loolu lu baree baree bare nu romb ko lu baree baree bare ndax kat eh, Baay Faal yi ñu gis ni ñu doxe ci tabaski gi war rawatina nag eh, nun waa Daaru Salaam rawatina nun waa Daaru kon nag li nga xam ne nun noo ko tàmbali njëkk koo def di joxe àddiya lu nu am lu nu am jox ko sëñ bi nañ ci góor góorlu ba kenn duñu ci raw sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp di baal àq ñépp di balu àq ñëpp di ñaan nu fekk ko déwén di ñaanal imam bi sëriñ Abdou Cheikh Abdou di ñaan tam kuréel bi nga xam ne ñoo yore jàkka ji di sëriñ Njaga Njaay ak mu suñ mu droq yo wàdd ak ñi nga xam ne ñoom la ñaanal ñëpp ñi ñaanal presse bi nga xam ne lépp lu ñu fi def ñoom ñooy ñëw tasaare ko ba bi yëpp yëg ko ndax presse moom mënees na ko jàppe rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jullit yi nekkee ñeent fukki jullit ñu nekk ci kër gi ñuy wax daarul xam ci màkkatal mukarrama bu ñuy waaj a julli dañ daan nodd taxaw di nodd di tapp di jël ay tax di ko def ci seen seen gémmiñ ngir bañ nodd gi siiw ba yéefar yi fekk leen ba keroog ba Seydina Omar tuubee Seydina Omar ba mu duggee ci lislaam ci la gis Bilal di nodd jël ab tax teg ci gémmiñam mu ne lii lu mu doon ñu ko dañuy bañ ñi tuubut ci biti dégg ko ñëw di dal ci suñ kaw mu daldi di jël nangu tax bi dal ci dóor jaasi ji mu yore tax tax bi xar mu dal bi yéegal ci kaw mu yéeg mu ne ko noddal buy wax ashhadu an laa ilaha illallah mu gëdd kook jaas yi ne ko yokkal sa baat loolu moo waral kuy nodd boo akkee ci ñaari baat yooyu ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga yëkkati say testin loolu foofu la tàmbalee kon nag eh, yéen seenu taxawaay mat na sax ndax julli gi ñi bokk ci kër gi ñépp ak ñi bokkul ci kër gi dinañ dégg julli gi xam ne fii kërug lislaam la lislaam rek lañ fiy jëfandikoo lislaam rek lañ fiy jàng i taalibe yi sëriñ Tuubaa lañ yoo xam ne bu duñ ko booleeg dara ay njabooti yonent bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lañu guddeeg bëccëg ci loolu la nekk ci loolu la ñuy xëy ci la ñuy gont kon nag sëñ bi yàlla na fi yàgg te wér njaboot gi yàlla nañ fi yàgg te wassalaamu aleykum wa rahmatullah amiin amiin amiin amiin amiin amiin